balaa ngay tàggatoo. dama ko dégg nag ci yu bari quoi ñu ne wax jee bari rek waaye Modou Lo jëlul Tapha Tine jëlul kan day bàyyi bëri est-ce que day bàyyi bëri. non man gëwuma loolu ndax waxuma loolu Modou Lo yàgg nañu wax bàyyi na bëri de lu tax nga bëgg ko dégg tey avant muy bëri ak Ama Baldé la ñaan la imaam la bàyyi na bëri ah waaw coow ko ci coow ak lam moo am. mais gëmoo dina bàyyi. non bàyyi Modou borom xol bee rafet daal yéene xale yi xaalis xale yi moom la ñuy xaar. mais digganteem ak Siteu. ba tey man naa ne Modou Lo dàqul kenn dàquñu kenn kuñ làmb boole rek ci kàttanu ne yàlla kuñ juboo rek non Reug Reug moom bëriwuñu ak moom ci kàttanu ne yàlla. ah mais bu daanee Bombardier mais instant yi moom moom Franc moom lañ bëgg. Hmm? Modou Lo Franc rakam la Franc moom war xam Lo xam ne daa a bëri ak dem di jël Reug Reug loolu du ko def foofu amu fa chance. mais dégg naa 300000 ngeen di laaj pour cent ci nit ñi rek laay déggee comme ça hmm. man du ma du ci yooyu béy dëgg la ay <laughs> jërëjëf man foruma léegi damay bañ béy quoi waaw ndax wax lan la bukki waaw war a maa dégg